Yeah. ndigalul magam yi toog ndax biir nga yéen mag mag jiitu la li ko waxee sànq waaye ay magam ñoo takk cër jox ko ko sagale ko muy xëy delloo muy baxaw mi toog déccee ngi ni toog Pape Gaye ngi ne toog waaw Baye Seex ngi ne toog léegi nag da ci sànni kàddu yu ci làmmiñu magam yi toog waxul cëram de cëru magam lay waxee asalaamaaleykum aale moo leen di nuy di wax asalaamaaleykum mbokki jullit yi. nee na mi ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant. nee na mi ngi leen di baal xaq di leen baal wàq. nee na mi ngi ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla defal tawféex féex te musal mi. nee na lii muy fas yéene wax nag du bari. dañoo bëgg a def farata na dañoo bëgg a def farata ji ndax jot amul. li ñuy waxtaane bu ndee ba ndelloo ba ca ga ñu waxtaane ko fa. damay wax ni. nee na mi ngi waaj a wax ni. samay kilifa dañ fee toog. ay kilifaam rek a fi toog. sama wàllu néegu ndey. wàllu néegu ndeyam. ak sama wàllu néegu. wàllu kër baayam. bu dee sama wàllu kër néegu baay. bu dee kër baayam. Cheikh Gaye ngi ne. Baay Cheikh ngi nii toog mooy seen xalifa yàlla na yàgg seen kanam yàgg ci ginnaawam. bu ko tuddee nag yóbbaal na ñëpp géew. bu dee kër ndeyam. Ablaye Ba Ablaye Baa ngi nii toog. tudd bu ko tuddee tudd na ñëpp. nee na sant nañ leen gërëm nañ leen. matale ngeen cër bi sëkk. nee na mat ngeen i kilifa. ndax jamono yu mënti doon. yéen a ngi nemmeeku. ci seen bët xonqee ngeen taxaw. bu ngeen nekkee ci mbégte. ñu taxaw kon sant nañ leen baax a baax mi ngi ñaan yàlla mu yàggal leen sunu kanam yàggal seen taxawaay nee na mi ngi sant Baye Modou loo li ñu koy sante mooy daa jàpp seen mag jii di Ablaye lool ànd ak moom ànd bu rafet loolee li ñu doon ay xale-xale nee na xam nañ ko kon ñu ngi koy sant bu baax a baax Adama ñu ngi lay sant.

kon boo ànd ak papa yow Adama ci ànd bu rafet boobu ci ànd ak moom ngir dara ndax pap koy jàpp ngir alal danga koy bàyyi doo ko jàpp waaye seen diggante yéen ñaar yal na suñ borom sàmm ko yàggal ko te dafa ko taw féex li fi indi nag enaay doom lañu seen i doom lañu boole ndax ñi fi teew ñëpp wàllu kër kenn ku yenn nag jam ñaari cër

ñu def farata ji te ñaan suñu borom barkeel ko bool ko sëy gën a barkeel su ko defee bu newee ba ci kër ga nag mën a kon ne waxtaan wi waxtaan wi waxtaan suñu biir jërë ngeen jëf kon léegi bi nga waxee pare Ousmane njaay mii di magi Adama ànd ak oustaz mii toog ñoomit yaakaar naa ni ak Talla mbay mii toog Talla fay kon il faut ñu am kàddu yu ñu ci sànni mbokk yi Ousmane na gannaaw ba sant yàlla jul ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kàddu gi ñuy yëkkati nee na oustaz Samb mii la koy jox nee na mooy seen imaam di seen xalifa di ku baax lool fuñ xewle fu ne oustaz mooy jiit seen kanam moom la tiitaroo kon bu ndikkee ci ndaje mi moom la ñu delloo cër bi rek. waaye day leeral tuuti rek nee na li nga moom la fas yéene def dañ cee am mbégte lool di ñaanal Papa Gaye fa mu bëgg ak yàlla ko fa yàlla àggale li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal sëy bi ñu fas yéene takk yàlla na ko suñu borom bi defar sëy yu ñu takk yàlla na ci bokk sëy yu barkeel yëpp yàlla na ci bi bokk mais mi ngi wax ni Adama mii li wax de moo am moom mooy kilifaam. xëy na nag ñu bari xamuñu loolu dafa juddoo kër sëñ Louga moom mu juddoo coxna waaye mooy seen mag bi yàlla defee mu am soxna këram la ko yóbbu li mu wax rek lii nga am amoon ko bàyyi lu déggu la ci Papa Gueye ndax seen ànd yàgg ndax aadama mi doom ju judd bala mu koo tudd néegam la ñuy tikk toog mooy wax kun koy tudde doom ji mu tudde Papa Gueye ba mu dikkee néegam daa toog din aadama ni ko Ousmane suba dee tudd mi léegi damaa bëgg sama doom ji Pape Gueye laa ko bëgg a tuddee nee na keroog la xam Pape Gueye mu ne Pape kuy Pape Gueye comme moo daan joxe tur te tey mu joxe tur tey te ñu ne tur sa mbokk wala tur sa xarit te xaw ma xarit bi moo tax mu laaj ko ko mu ni Pape Gueye de yàgg nañu ñoo daan ànd ba nuy xale ba léegi waaye nag. décce xam nga ni ko xam nga décce mu ne bu baax ñoo bokk yëngu-yëngu bu baax la mu ne boo xamee déccu xam nga papa kay kon décce tiitaroo say mag wala tiitaroo rak yàlla na fekk mu baax décce fi ngeen bëgg ak yàlla na fa yàlla àggale yàlla na fa yàgg neex na ba pare parce que lim la xamee su waxee pap kay dàkkantal ko ci yow wala ñu koy xool ci yow kon daa fekk nga baax kon pap baay gay baax na kon pap dañ koy ñaanal rek fa mu bëgg ak yàlla fa yàlla àggale aala mii nag aadama eh, eh, mii nag war na noo wax ni diggante xarit doomu ndey xarit dana gën doomi ndey ndax pap su ko xamee aadama aada su ko xamee déccee déccee bu àndee ki rakkam ak i magam ak i doomi ndeyam kon baax a tax kon yàlla yàlla fa leen cat cër bi nekk kontaan nañ ci lool moom nag da leen doon tijji rek nga xam ni aadama mi mooy kilifaam ay rakkam mooy kilifaam amul lenn loo am ne dana ko décider di waxu ci moom lii su ko amee mu joxaat ko cër bi def na devoir ma mat ko yàlla ko yàlla taxawu léegi nag li nga xam si nag moom lay muy delloo oustaz imam doomu ndeyam di xaritam mu mu sànni ci kàddu suñ suñ ñuy ñaan suñ ñaanee pare mu may leen jërë ngeen jëf. ngeen di nuyu. nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaare nee na mi ngi leen di baal àq te di leen baalu àq nee mi ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm mbas mi yàlla nañu ko yàlla dàqal defal ñu xéewal gu bari at mii ñuy doog a dugg yàlla na dàq at mii ñu génne yàlla de mën na ko yàlla na ko yàlla def lii ñu fas yéene def muy farata ju neex yàlla yàlla na yàlla barkeel ko nee na Ousmane Ndiaye mii di président jox ko kàddu gi nga xam ni. nee na moom day mënatu a wax ci moom. nee na matatul seede ci moom. Euh, ndax danoo wax ni. ab seede bu fekkee. ak cofeel daa nekk seen diggante. te mu dëggu. kooku nga seedeel ko day jafe. ndax moom ci boppam. yàlla dafa dogal. daa ñëw ca quartier ba. mu nekk xale. mu nekk xale. Eh, yàlla jox ko fa ay cër. yàlla jox ko fa nag ay cër. moom ci jëm boppam. moom mii ci boppam di Ousmane Ndiaye. mu jël loxoom. mu jëlub loxoom. téyewaat ko ci sama loxoom. téyewaat ko ci loxoom. jàppale ma ci côté yu. jàppale ko nag ci côté yu bari. ci saahir bi ak ci baatin. ba ci sama jumaa ji ba ci jumaam ji mu mujjee ubbi. fa tabaarakallaahu. lam ca daj. kooku yàlla rek la ko seede yàlla ko yàlla fay. yàlla mi am fay yàlla na ko fay. nangu naa sonn lool. comme di ko ñëpp xamee. waaye nag. képp kuy baax ku ne. yàlla la gën a baax. yàlla na ko yàlla defal gudd fan. nee na lii muy def ci lu baax yemale ko diggante ak moom rek nag. waaye ay bokkam nag ci la koo commencé. képp ku ñëw rek. dina la wax digganteem ak moom. su ko defee nag doxal rôle boobu. doone nag doxal rôle boobee. moo tax fu mu jógee rek. moo tax fu mu jógee rek. bu ko woowee rek bu ko woowul boo yëgee rek day daal di jóg moom topp ca. loolu nag moom day jéem a fay bor rek nee na. waaye li muy def mooy fu mu toll. di ko ñaanal rek. lu mu yëg ak lu mu yëgul nag. ñaanal njaboot gi. yàlla defal leen barke. yàlla defal leen jàmm. yàlla defal leen xéewal. yàlla defal leen teraanga. yàlla yàlla sàmm leen. lépp luy yàq lu nekk yàlla. lépp luy yàq lu nekk yàlla bu mu ci am. yàlla mën na ko yàlla na yàlla defal ko. comme waxtu yi dafa xat. comme daa xat. te dajaloo bi dañ koy. te it dajaloo bi dañ koy tere. nee na foofu lay tënk wax ji rek. kon ban ban beneen jërëjëf Samb. Aline Badara Ñing moo leen di nuyu. di leen ziare di leen di leen baal àq na ci turu mag ñi mu àndal jàkke ji yëpp ak ñi ci seen ginnaaw nee na ñu santati yàlla bu baax nag nee na ñu ngi wax ni lii ñuy def nii muy fas yéene fasub sëy sëy bii ñu fas yenee fas bu ñu paree yàlla ci yàlla def barke nee na mu mel ne njaboot gi nu bëgg a boole tamit suñuy doom. fii ci jàkka ji tey. fii ñu toog ci jàkka ji tey. nee na muy soxna si nga mooy soxna Kumba Awa Gay mi ñuy fasal ab sëy tey. nee na maamam ak baayam ñëpp ci jàkka ji la ñuy joxe seen faratay juróom. ndax nee na ñoom ñii yore tey responsable jàkka ji ba nuy tuut tànk lan fi doon ñëw di fekk seen waay waajur muy sunu baay bas ak njabootam ak ñi ci koñ bi yëpp ñu xamee leen fii jàkka ji. nee na papaam ji nag di sunu mag di papa gay nee na bu daan tukki bu ñibbisee fajar ci jàkka ji guddi gi mu wàccee ku ñëw jàkka ji fajar da nga yëg ni Papa ñëw na ndax fii ngeen di bokk yéen ñaar jullee fajar kon bu yàlla dogalee tey yàlla may ko leer leer googu dem ba tey jii ñu fas yéene fase ko fii ci jàkka ji ñuy ñaan yàlla yàlla mi am barke yàlla na ci yàlla def barke nee na ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen jaare nee seen jotaay bii tey am ñu wuute nekk ci biti ci ay farata yu mel nii di ko dox te yàlla defoon ñu ay kilifa nekk ci jàkka ji muy imaam ak naa naayim mag ñii topp seen ginnaaw am ñu wuute tey te de seen kilifa ñoom ñu nekk ci yu mel nii ñu ngi ñaan yàlla ñoom it la ñuy dox te mu neex yàlla di farata di lu baax yàlla yàlla àggale lépp bañ del dellusiwaat fii ci xadara bi. kon nag ñi ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant mbooloo mi fi toog yëpp. kon ñi ngi fas yéenee jiblu ci li ñuy def kii ñaan ñëw ñaan kii maye maye imaam xutba nee na li nga mooy doon faratay sëy bi tudd nañ ko mat na am na ay seede can gi mat na kon ñu jubli ci ñaan yàlla yàlla def ci barke bisimilah. ñett seen bay bay la jox ko joxal sëñ ba joxal seen jàkk jël nañ ko joxal kon can gaa ngi nii 18000 la ak 20000 euh, bayu baay joxe nañ ko lenn doo nga des rubuxu géwël dee leen ko nasaale gone yii fi des sant gay matale nañ ko Adama mee di suñu mag Ousmane di suñu mag kon moo tax ñu topp leen te koy topp da lay nekk mbër gu jërëjëf bu ma la gisee ci ginnaaw décce war na ñu mag suñu xarit Modou Lo nee na mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp nee na nag mi ngi leen di sant di leen gërëm sant gu am tàmbali tamul yemukaay nee na lii ñuy bëgg a def nii yàlla na ko yàlla barkeel amin nee na sëy ya commencé ca sunu am aadama ba fi ñu toll tey jii sëy bu ci am barke yàlla ci sëy bii bokk mbas mii nag fatt ñu lakkal ñu jaaxal ñu yàlla ñu ci musal jëlee ko fi làq ko fa mu ko làqoon ba xamuñu ko woon mu denc ko fa. comme waxtu wi daa xat. ñu jublu rek ci farata ji. kii ñaan ñaan. kii maye maye. ñu xutba ñu dellu ca kër ga. te ñaan yàlla defal ñu daje waxtu daje bu mel nii jërë ngeen jëf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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين طيب فلهم الدور الله سمعت آمين ثمر رب لهم من شر ما خلق ومن شر آمين ثمر رحم من شر وسط ñaanal kumba gay di ko ñaanal Ablaye Seck ci farata yàlla sunnas Muhammad وإن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به رقيبا رقيبا رقيبا maa ngi ñaanal Kumba Gaye di ko ñaanal Abdoulaye Seck ci projet fi yàlla ak sunna bi Muhammad amiin inna Allaha kaana alaykum raqiiban maa ngi ñaan Kumba Gaye mi maa ngi ko ñaanal Abdoulaye Seck ci projet fi yàlla ak sunna bi Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق آمين والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار حكيم صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب آمين آمين آمين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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد كم بسك ما may naag Ablaye Gueye ci farata si yàlla sunnas اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Kumba Gueye may naa ko Ablaye Seck ci farata si yàlla ak sunnas Muhammad ak ndigal ñaari war juróom bir rafaahi bari wal banin allahumma salli ala Muhammad wa sallim amin ya rabbal alamin yal na yàlla nangu yal na yàlla barkeel yàlla defal leen jabar gu barkeel allahumma salli ala Muhammad wa sallim jërëjëf amin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah bismillahi arrahmani irrahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بها والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون بها ورحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بارك الله الله صم لهما واطال عمرهما وعمرنا واغفر لهما وحدهما وحدنا واغفر لنا انت مولانا واحفظنا وعافنا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 Market.

ñaar yàlla buru ñetteel leen jëkkër waree fam nay muñu naqar ci biiru sëy dundal ko woddu dëkkal ko ak dëkku ci biiru sëy su la jabar laajee soo amee joxeel gaaw su la jabar laajee soo amee joxeel yi su gaaw ki su la soo amee fekkee la mu laaj war na ko jox gaaw bu bu julli lu mu seer seer itam joxel gaaw wallaay bu laajee dépense soo amee joxel gaaw buur soo meree na nga yite lu la mën di naqari woo ko kër ga àggte soo waxee ba mut soo tiwul defal ni demal seeti kilifaam yoon wi moo di def ni xel mu manqué tax ñi jëlee kufur baay xel mu manqué tax ñi jëlee ko kër baay xel mu mata dee tax ñi jëlee ko kër yaay yore jabar warul laa tax nga foog ne yaay seef dekete yore jabar warul laa tax nga foog ne yaay seef loxo yi yore jabar warul laa tax nga foog ne yaay ay Cheikh walaay ni jabara laa tax nga foog ne ay Cheikh walaay ba ngay lu mu wax da ko ko woon mu ni bu dajee naa ko wax ndax lu ko ñor la ndax kàddu yooyu yu ko ñor la kàddu yooyu nag kàddu yi sant la kàddu yi sant la ak ngërëm ak ngërëm bàyyi ko nag bàyyi ko nag ci Papa Gaye ci Papa Gaye jëm ci sëñ Cheikh Baara jëm ci sëñ Cheikh Baara Mbakke Mbakke mi toog moom sëñ Modou moom sëñ Modou moom sëñ Aziz moom sëñ Baara moom Xaadim Rasul Papa Gaye mu ne mi ngi koy sant bu baax Papa Gaye sant sëriñam bii di doomam di jar baatam mi sant bu baax koy sant bu baax di wax ni mi leen di wax jamono yu jamono yu ne. mi ngi saytu njaboot gi mi ngi njaboot gi. li ko ci war mi koy def ci war mi ngi koy def. mi ngi jàngal gone yi mi ngi jàngal gone yi. ak sa njaboot. balay sa ñi ngi lay sant. di la gërëm di la gërëm. baat cant yi des muy yëkkati waat. ñu ko jëmee ñu ngi ko jëmee. ci waajiru ku jigéen ki nga xam ne. moom la ñuy maye tey jii moom tey jii. muy Faati Fall. muy Soxna Faati Fall. Soxna Faat Fall nag Soxna Faat Papa Gueye mi ngi wax ni. sant na ko sant na ko. ba sant yem ba fa sant yem. am nag tàmbali am nag waaye amul yemukaay ndax nee na ndax nee na. sonalu ko ci dara sonalu ko ci dara. noppal na ko. noppal na ko. ah mboolem loo xam ne. na mas na koo naqari lépp lu ko mas a naqari. te faatfaal xam ko te faatfaal xam ko. du sa jaar faatfaal du sa jaar. bu doon lum jaar bu doon lum jaar mu naqari ko. bu ko yëgee ni juum. ci suuf saase da koy rectifié tuub ko jégglu ko jégglu ko nee na mi ngi koy sant nee na mi ngi sant cant gu am amul app amul fu mu yem di gërëm aadama di gërëm aadama di wax ni sa digganteem ak aadama samedi ak dimanche la bis doxul ci diggante bi mi ngi sant aadama bu baax di ko gërëm di ko wax ni cër bii mu ko jox wallaahi ak mbokk ak am na ndax diggante may Adama ak Papa lu ne am na ci kon nag ñi ngi sant Adama bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñ borom guddelu fanam te yàggal ko seen diggante nee na bu loolu weesoo day jël cantam di ko tàbbal ci magam ci rakkam baxaw jàll dëcce njéem mi moo gën a nekk xale di doomi baayam di rakkam di léppam waaye di xaritam sa sonal ko dara mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci mention spéciale cant ndax li tax mu def ko. doomu aadama doomu aadama am na teraanga ba taay te ko def fa mu ko war a def waaye de day bi ko yàlla joxe teraanga daa joxe respect joxe cër ba pare def ko fa mu ko war a def ba pare nag boole ci nag jox ko cër bu ma sëkk ndax mënoon na ni mënal naa sama bopp am naa lu ma yàlla jox bëgg a yéeg ci kaw yi magam magam te bu boobaat day sotti waaye mu leen a mag. kon nag mi koy sant waaye kon ñu ngi koy sant bu baax. di ko gërëm di ko gërëm. di ko ñaanal suñu borom guddalaw fanam yokk ak wéram. di sant ñëpp di sant ñëpp ñu fi nekk nag. bawuñu kenn bawuñu kenn comme ni ko waxee woon rek. néegu ndeyam néegu baayam ay dëkkandoom bàyyiwul kenn bu limee day desal du jeexal. di sant nag di sant. doomam ji nga xam ne moom la doon maye doom ji doon maye. li koy sant nee li tax mu koy sant mooy.

li may wax nag li muy wax nag. ci farfaal ci muy mbaax gi muy mbaax gi. di yéwén gi di bëgg doomu aadama gi di bëgg doomu aadama gi. di bëgg waa kër di bëgg bëgg waa kër Papa Gueye bëgg famu asandeele bépp. sama dooy bàyyi mën nañ ko nee na dooy bàyyi mën nañ ko seede. njéeme ngi nii toog mën njéeme. doon na ci seede bu wér nee na seede bu wér la ci soppeem sëñ Sam bi. pantre bii ngay gis nee na pantre bii. ba mu fiy wàcc ba mu fiy wàcc. fi la wàccoon fi la wàccoon. doom yëpp ci pantre bi lañ te mës ta wax ne xat na nee na mosul ni néeg bi daa xat. ba leneen lu ko fi fekk ba koy fekk fekk ko fi. kon sant na ko sant ko amul àpp. li tax ñu koy sant ci kanam mbooloo mi daa waxoon ni bu ñëpp dajee nañ ko santal Faat Fall ba ñëpp xam ni xolam seet na ci moom di ko seedeel nag sëñ Cheikh Baara di ko seedeel mbooloo mi yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di wax ni rek képp ku fi ñëw te indi fi soxla bu man doon yàlla ko suñ borom saafara ku fi indi rag rag yaram yàlla ko suñ borom saafara ku fi indi rag rag poos yàlla ko boobu indi naa ko fi moom yàlla yàlla saafara amin yàlla yàlla musal ci mbas mi musal ci mbooloo mi daraja seexal rim sant nañ ñëpp gërëm leen lu ci manqué rek ci moom mii di wax ak man mii jottali waaye moom matale woon na jërëjëf sant nañ ñëpp waaye aale seere ko fa téye ko fa goree ko fa wane fa mbaax looloo tax mooy nangoo yabalaat ci sa biir kër boo meloon nee na nga wala am wextaan wala leneen nooy doxe du ñu yabalewaat sa kër ndax seppali bu nee buñ ko laajee rek la nga sefoon a neex waaye boo sefee lu wexaat ku duñ duñ lekk bay naan seppali ñu kon yow mii lan topp si yàlla na yàlla defal la barke. yàlla na yàlla bàyyi ci kanam gi sagal nga ñu sagal sa bopp sagal saw askan boo fa meloon neneen duñ topp si waat ba dugaat ci kër gi kon jërëjëf gay yàlla na yàlla dool la jàmm barke Seydina xale bii fa jëm yàlla na mel na yow barke Seydina Mohamed jërëjëf kon moo leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku fi nekk sa tur sa sant nee na mi ngi jox seex sëñ Cheikh Baara wàcc wàccuwaayu maamam di ko jox cëram di ko wax balay sax ñu ngi lay ziare di la ñaanal ci sa barke maam fa nga bëgg a yegg yàlla na nga fa yegg nee na yaakaar ji dey ci yéen lañ ko yaakaare balay sax yaakaar ji ñu yaakaar ci yéen yal na yàlla fulandi ko te saare ko ci àddina bi ni wax ni lim ci wax du bari ndax sëñ bi dafa bëgg a yeeweeku cër bii ñu nga am si dañ ko jox aadama mooy taaw waay juróom wu jigéen moom la aada nekkal da doon wax tuuti rek lim doon wax ci jàkka ji di wax ne dëgg moo am dëgg rek kay dëgg aadama Papa Gueye yàgg nañ Adama bi mu xamee Papa Gueye Adama ba mu amee soxna day jël soxna sa ak Adama yëpp yóbbu këram nee na bu amee doom soxna si am doom doom ju judd rek nee na moom mooy tudd te Adama du ko laaj tur woo koy tudde nee na nag benn bis soxna si amaat tu tànk mu dikk nag fekk ko ci kër gi ni ko dey damaa bëgg tudd suba waaye turu suba wi dey moom Papa Gueye laa koy tuddee mu ne ko kuy Papa Gueye ndax koo xam bu daan tudd du mooy joxe tur tey mu am tudd tey di kii maay tudd te kii laay mu ni kon kooku am na fu ci moom kan la kan la mu ni ko Papa Gueye day yàgg nañu kër sëñ Koungheul dëkk ñoo fa wandoo lépp. lépp ñoo ko fondo bi waxee loolu mun ko man de xaw ma papa kay mun ko waaye xam nga décce kay mun ko xam naa décce kay lool ndax décce ci yëngu-yëngu bi ñoo ko amee yàgg naa xam décce mu ni koo xam naa ko mu ni nag mooy magam ñoo bokk ndey ak baay ci la xamee ni mu ni ko kon kookee bokk ak décce mii ma xam kooke d'accord naa ci moom ne ku baax la bu tuddee ko mu tuddee ko doom mu dem ba tey Papa Gueye bàyyee la ko ànd ànd boobu yi li sëñ bi wax rek dëgg la yal na yàlla na leen taxaw di gërëm bu baax sii eh, nag waxtaan ci pantre musul ni xat na ba yàlla defal ko fii tey lii ñu ngi koy gërëm liñ ko waxal jigéen ju mu doon ku nekk. jigéen ju mu doon woon kon. war nga koo fonk war nga koo fonk. war nga koo topp. lii ñu ko waxal nag lii ñu ko waxal nag. yàlla na wéy yàlla na wéy. yàlla na topp doomam. di gërëm it wujjëm yi mu nekkal ci kër gi. wujj peccarko yi ñépp luñ bëgg. yal na yàlla defal leen ko. tey bisama bisam bii nag yàlla seddu guy di ñaanal nag ñi nga xamante si ñooy ay kilifaam war ko war a fekke te fekku leen fi yàlla na yàlla defal leen jàmm ba ndees ak lépp lu ñu bëgg yal na yàlla suñu borom defal leen ko loolu amul lu mu ci wax sëñ bi daa yàkkamti mënoon naa gudd lool waaye comme daa yàkkamti ñu kon ñu teg ci lool rek di ñaanal Pape Gueye moo ko mii fu mu bëgg a àgg yàlla fi yàlla àggale jërë ngeen jëf jërëjëf Modou nuyu naa la Modou Gueye moom bala loolu laa ko wax bala xuma aay na am déet <laughs> am bisimilah kii koy jottali nag Sele may saako jur moom it muy Serigne Ndiaga Mbaye ñu tudd ko Serigne Ndiaga Mbaye Serigne Sele Maysa waaye moom sëñ Cheikh Baara mii mooy Serignam di soppeem di léppam di ànd moom def ko Serigne mm-hmm. mi ngi nii géwal la waaye Serigne la. ndax moom daal léegi daal mu ñëw ko gërëm naa ñu koy yemale. addu yéen nga daal moom nag moom. kon jërëjëf mu mel na comme ni ko Samba waxee léegi Serigne Cheikh Baara Mbacke mii toog. dafa am taalibeem boo xam ne tey si moom la Serigne Touba jaarale ak njébbalam mu ron fas soxna tey mu dem fa waaye dañu du ma fa mën a yàgg danaa fa ma egg si kër gii ndax kër gi kët bari na lu fi xew xam naa dana ci ñëw ni bala maa dellu ca fële ma jëm danaa jaar ci kër gi yëkkati fay kaddu yoo xam ne mënta ñàkk kon noo ngi ñaan foo waay mën a nekk nga may ñu dégloo ànd akuk dal Serigne Cheikh Bara jàllale kaddu ñaanal mbooloo mi ñu yeeyu kon Serigne sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bu baax sëriñ ba xaw Gay nee na ginnaaw sëñ Paap moom moo fi nekk nee na kon mooy buntu kër gi sëriñ bi nee kon mi ngi jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoom mu jàll leen ko ci njaboot gi yëpp sëriñ bi nee mi ngi jéggalu bu baax xataay bi nga xam ni xat na tey nee na comme ni ñu ko waxee rek noonu la demee nee na bu sañoon da koy ànd ak mbooloo mi ba mu jeex tàkk sëriñ bi nee na kaddu gi na kaddu yi sant rek la nee na mi ngi sant njabootu Baay Bas yëpp nee na sëñ Pape gay nekk ca bopp ba sëriñ bi nee na comme ni ko sëñ Aale Gaye mii waxee nee na noonu dong de la demee nee na kër gii de moom nee ñoo yam benn lan ak fa mu dëkke nee na xàmmewul de ñaari kër yooyu kon sëriñ bi nee na kàddu yi lu fi waay yëkkati wala lu fi waay def rek nee na moom mii sëriñ Cheikh baara moom nga ko defal kon sëriñ bi nee na mi ngi sant mbooloo mi fi teew yëpp nee na muy dëkkandoo muy xarit yi nee na muy àndandoo am di jàmm yi ndax sëriñ bi nee na liggéey bee muy liggéeyal maamu ji baax bi Cheikh Bamba Xaadimal Mustafa nee na muy daara jeemu ne nee na seen jigéen bu baax bee di soxna gay nee na lu ne lay daj ca daara jooju nee na ak njaboo tamit lu lañ cay daj ba sëriñ bi nee na léeg-léeg sax da leen cay yërëm nee na ngir maanaam bëgguñu sax xale yi na ca daara ja tilim nee na bëgguñu ñu xiif bëgguñu ñu mar bëgguñu ñu rafle nee na léeg soxna gay mais day yebal waa këram gépp ñu ñëw ca daara ja raxas ko bale ko defar ko ba mu baax te nee na soxna gay de loolu yàlla rek a tax mu ko def ak alxuraan nee na akuk mbokk nee na noonu lay taxawee ca dundu ga nee na boo gisee li tax jamono li fi am yëpp xew-xew yi fi am yëpp te nee booy xoolee daara ji de manqué wul dara nee na lépp lu jëm ci ak dund nee na dafa mat sëkk nee na lépp lu mag ak naan nee na da caa mat sëkk nee na loolu nag taxawaayu soxna Gaale mi ngi koy ñaanal bu baax nee na ak taxawaayu njabootam nee na ba tax nag moo tax nee na loolu mu ne ko bañ a wax ndax nee na jëf ju baax la kon war nañ koo wax. nee na alxuraan dafa wax ni ku jëf jëf ju baax nee na day delluwaat ci yow nee na nee na alxuraan dafa wax ni ku ñaawalit nee na day ñëwaat ci yow rek kon nee na jëfi kenn nee kenn du ko jël kon sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax nee na kàddu cant la yoo xam ne nee na mi ngi ñaanal ki fi nekk nga xam ne moom lañ doon maye tey nee na ci yaram ak i tegginam nee na heure boo ñëwee rek da ko fekk si wati waay juróom wu jigéen ndax nee na moom mii de daanaka ci kër gi la dëkk nee na waaye moom de mësta ta ñëw ñu ni ko ñu kalaame ko soxna si wala ñu ni ko waxal ak moom kon nee waa kër gi yépp rek nee na ñu ko mat baay def na leen baay ñu ko mag mat def na leen mag nee na gone yi jàng ca daara sax. moom lañ xam. nee soxna si da lañ xam. nee na de yaay lañ koy wax. te nee na ñenn ñi de mag la ci ñoom. kon nee na loolu de. nee na taxawaayu jaboot la. kon nee na ñu ngi lay ñaanal fa nga jëm. nee na suñu borom defal la sa njaboot bu barkel. barke Seexul Xaddim. sëriñ bi nee na ñu ngi gàttal te nuyu kilifa yëpp. nee na xarit yeeg. àndandoo yeeg. dëkkandoo yeeg. mbokk yeeg. nee na képp ku fi teew rek nee na moom mii sëñ Cheikh Baara moom nga fi teewal nee na dafa am nag tànk yi muy doxiwaat nii léegi nee na mu jëm ci lu ko mel nii nee na kon da koy yëndoo ak yéen ànd ko yéen ba mu jeex nee na ñu ngi sant bu baax waaw kon danañ ñuy bàyyi décce rek décce sëriñ bi nee na kon dañuy battaleeg ñun rek kon bu ko defee mboolem fu waay nekk ñu tàllal loxo yi. deg na ma decc serigne bi neena batale non xamé ma ma ngi ni ma son lu wex waaw kon nak mbolam fu way nek nga talal loxoy yi ñu ñaanal serigne Cheikh Baara Mbacke mu yag lool te wer ndax sama baye Sala may sa dañuy dund bu amé ndariñ yag ca gën serigne Cheikh ku ko xam-xam ni dundam gi ndariñ kon yalla nga yag bu la neexoon nga ni Serigne Touba sama maam damay jël sama pliant bee teg ko ci garab gi taalibe yi daw addiya ñëw di ma ko jox mi ko ma koy lekk te tutee mu lew ma ndax addiya ak mooyaan boo ci lekk boo géexee mu res yaay sutu wàllu yoog buur di sëtu ko keng daam Cheikh Lamine Bara sa mbaam sa maam ja ku ko xam-xam ni mënoon ci alquran ki ko xamoon xam ko ci yërmande la Lamine Bara sa maam mo daan xol yalla sun borom sun borom waajal musiba ak bala jema ko ci mindeef ni serigne bara sa mam ñaan yalla nuko musiba ak bala yoy nga jema ci mindeef ma ngi lay ñaan nga tek ma man ahmadu lamine te jàmm ñu mucc sa mam nonu ngay doxe mbak yalla nga yag lo te kon no ngi ñaan mbooloo mi ñaanal ko mu yag lo te balay sa bismillah kon ay nenel amin amin amin amin amin amin